bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala maa ngi tàmbali samay kàddu ci turu suñu borom di wax bismillahi irrahmani irrahim di sant suñu borom di julli di sëlmal ci ab yonanteem ak i ñoñom ak i saxaabaam ak képp ku méngoog moom ginnaaw loolu nuy nuyu mbokk yëpp nu yób islaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ñu am mbégte di faat ak yéen ci aayatul kursi bi ñu tolloon te doon ko waxtaane doon nañ leen wax ne am na ñeent fukki tur moom aayatul kursi te bari ay tur day te tegtale màggaayu loolu noo ngi woon ak yéen ci sunu jotaay mujj bi ci ñaar fukkeelu tur yi ak juróom ñaar ñu tuddoon ko ñu tuddee te mooy al ayatul muxdara ñu wax ne ayatul kursi ku koy jàng malaaka yi dañuy teew ngir di déglu te dañuy ñëw sax di siyaare si ki jàng ayatul kursi ngir teral ko ak teral ko ni ko salmaan farisi radiyallaahu anhu nettalee ne képp ku jàng ayatul kursi yu ci feebar feebar boobu boo ci waree faatu sunu borom dana woyofal sa sukuraat malaaka yi bépp kër gu ñu romb ayatul kursi yu ne fa wala ñu di ko fa jàng dañuy def ay sàppe lépp kër gu ñu romb xul huwallaahu ahad nekk fa walla ñu di ko jàng dañuy sujjóot gépp kër gu yomb mu jën sala suuratul xasri te mooy law anfal naa xaasal quraan xalaa jëw lëkka wala ñu di ko fa jàng dañuy sukk ci seen bëti woom lii ko dem ci samsul maharif da nga ko fekk ñu waxoon ne muhiddin ibnul xarab yu nee na ku saxal ayatu kursi junni guddi junni bëccëg sax ci ñeen fukki fan mu ne wallahi wallahi wallahi nazim dafa génn ci yàlla ñetti yoon génn ci alquran génn ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kooku yàlla dana ko wuññil roxaan yi ba malaaka yi ñëw di ko siyaare te nag mboolem lim bëgg dana ko am mu di soppaane ko ni ko neexee ndi ko dem ci xawaasul quran danga ko fekk kon day mel ni ñeent fukki fan guddi gu ne junni bëccëg gu ne junni loolu boo ko dee xool juróom ñetti fukki junni la quatre-vingt mille waaw nga saxal ko ñeent fukki fan moo tax am nañ baay bu baax baay bu baax Sëriñ Abdou Karim Touré bokkoon na ci la waraatam junni bu ayatul kon lu am solo la lu am solo la kon fofu lañ yemoon ci ñaar fukki tur wi ak juróom-ñaar kon inshallah ñu ñëw ci ñaar fukki tur wi ak juroom ñet ñaar fukki tur wi ak juroom ñet moy al ayatul muhtawiya lu tax ñu tuddé ko al ayatul muhtawiya ngir ayatul kursiyu dafa ëmb ay turu yàlla dafa ëmb ci turu yàlla loo xam ni beneen aaya bu dul moom ëmb ko indi na ci ay a ci ay turu yàlla loo xam ne beneen aaya bu dul moom indiwu ko wax nañ ne fukki tur ak juróom-ñaar ñëw na ci ayatul kursi di sept am na ci yoo xam dafa fës nekk allahu حي خيوم علي عظيم يوير يوفس واي امنا في خاني موم متمر لا تدانا كو اندي يوخ بن كو نم امنا في فين ولا ينب كون فك تور اك يوم ñaar يي فين يي نب يي فس كون mi ngi noonu ayatul kursi tamit dafay indi ci jëmmi sunu borom bi ak sifaatuhu subutiya ak salbiya li ci ayatul kursi ëmb beneen aaya bu dul moom ëmb ko ba tey sax ismullahi laxsam mi ngi ci biir ayatul kursi te loolu sax danañ ci ñëw moom ayatul kursi yu téeméeri baat la juróom fukki baat la cinquante moo la moom ayatul kursi yu am na ca fukki barab ak juróom-ñaar yoo xam ne turu yàlla da caa ñëw moo xam mu feeñ la walla mu nëbb loolu mën naa ko wax am na fukki barab ak juróom-ñaar yoo xam tur yàlla da ñëw leen dafa feeñ leen li mu nëbb mooy allahu ak ilahu ak allahu ak ila laa ilaha illa huwa xayu xayuumu ak damiru laa taaxusuhu laa taaxusuhu sinatun wa nawm ak damiru man salis yasfa indahu bi ak wa bi ismihi ak damiru yaalamu ak damiru من علمه أكدمر إلى ما شاء أكرفيو كرفيو هس دمير جوجو أك ولا يؤده دمير جوجو أكدمر حسهما دمير جنح الموي دمير المستقر نحن موي فا هو فاحر المفزع أك علي وهو أك علي أكزيو بقى خوالي موي fukki tur ak juróom-ñaar soo ci boolee nag dama yi nga xam ne mën nañ koo mën nañ ko see jëlee ci xayul xëyoom ak aliyu ak azim ak damir yi xam ne moom la ñuy not nottale lu njëkk al xay yi day mat ñaar fukk ak ñaar fukk ak ñaar lii ku dem ci téere bi ñu wax al itqaan da ko fekk kon juróom fukki tur ak juróom-ñaar ñëw na ci waaye ba tey boo xoolee ayatul kursi yu miim bi ci ñëw fukki miim la ak juróom-ñaar waaye ba tey boo xoolee waaw yi ñëw ci ayatul kursi yu moom itam fukk la ak juróom-ñaar di set turu yàlla yooyu nga xam ne nag dafa feeñ yi lëbb moom itam fukk la ak juróom-ñaar kon sabxata xasara la waaw sab'ata asara xusóom la moo tax di ko liggéey di sept am na doole euh, ñaar fukkeelu tur wa ak juróom-ñeent ci turu aayatul kursi yi danañ ko tuddee aayatu ismullahi al azam aaya yàlla bi gën a màgg wi ngir dañoo nettali jële ci asmau bintu yasib radiallahu anhuma mu ne dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne ah ñaari aay yii am na benn riwaaya mu ne ñaari aay yii de ismullahi al wa ilahukum إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أك الله لا إله إلا هو الحي القيوم مي آية الكرسي كن آية اسم الله الأعظم ترلا في تر آية الكرسي بطيسه جيرنا في ينتبه صلى الله عليه وسلم من آية بخمني لنكوي كبارنا لول mu ne ismullahi al azam fi salaasi suwarin turu yàlla wi gën a màgg daal ñëw na ci ñetti saar saar wu mu ñëw mooy suratul baqara fan la ci suratul baqara mooy ayatul kursi mu ne allahu laa ilaha illa huwa al hayyul qayyum ñëw na ci ali imran mooy fan bismillahi rahmaani rahim alif laam الله لا إله إلا هو الحي القيوم نونتي تاع وعنت الوجوه للحي القيوم ني نيلكو روح البيان إني كون غيسنا دا غيسنا تور يالله ويدي الحي القيوم نيونا سي آية الكرسي نيونا سي آل عمران نيونا سي طه حي القيوم كون bu yont bi ne ñetti saar yii ci la ismu laysam boo noppi tudd yi ñu lis tur wa nekk mooy xayul xëyoom moo tax ñu ne mooy aaya bi gën a màgg noonu la ko ruuxul bayaan indee noonu la ko indee ruuxul bayaan sax da caa boole waxaat ne doy na ayatul kursi ci càng ne turu yàlla wi ñuy wax alxayul qayyum man ca te mu huwal ismul ahsam tax alxayul qayyum mooy turu yàlla wi gën a màgg nga xam ne soo ko adal lay jox cent soixante quatorze moo tolloo nga ñu wax am wàllu dunia alali àddina tur wa gaaw la ci faj aajo ak may ay xéwal sëñ Tuubaa daana ko joxe ab lim ñu di ko liggéey jëlee naa ko ci ku ko jëlee ci sëriñ Abdullahi Jaxate sëñ Tuubaa daan ko joxe ab lim danañ ko wérd mu ëpp ba mu yées loo ci fas aajo joo ci fasu joo ci fas rek mu faju waaye boroom ruuxul bayaan nee na noonu lañ la rotee jóge ci gën gi mbindéef ولا جوغي سي كي كي گنتي ني يالا يوني صلى الله عليه وسلم ني صحابه يي دنج دون تود لي گنتي القران علي نين اين انتم عن ايه الكرسي وين نو گن دفق ايه الكرسي يونت بي دال واخني ياو علي من نيفي سين سانغ موي ادمه سانغ عربي موي محمد dama koy wax nag wala faqara surat yi modestement perse yi seen sang mooy Salman romain yi seen sang seen seigneur mooy Suwaybu waa Abasa mooy waa Éthiopie waa Éthiopie seen sang mooy Bilaal bu dee montagne yi montagne ak tuuru Sina nga xam ne fa la Moussa kii woon foofu tamit mooy sangu montagne yi bu dee bis yi sangu bis yi mooy bisu ajjuma bu dee sangu wax yépp mooy alxuraan waaye sangu alxuraan mooy baqara waaye sangu baqara mooy ayatul kursi kon ismullahi al dañ koy wooyee ayatul kursi batay jële nañ ci abi umama radiallahu anhu marfuan mu jële ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ne اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجاب اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاه في ثلاث سور في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي أول آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي طه وحنت الوجوه للحي القيوم yonent bi ne turu yàlla u màgg nga xam ne ku ci ñaan mu nangu lu ci waay laaj yàlla mu jox سوره البقره موي ايه الكرسي نجل بن الف عمران الف لام الله لا اله الا هو حي القيوم اك سوره طه وحنت الوجوه للحي القيوم كودم في روح روح كودم في خواص القران تنكو فك واي نك بو ديمي تي كتاب الرماع بو شيخ عمر بن طال مام نين يالله خبر نكو اسم الله احسن واي نك ا ku ci ñaan addina rek du baax de addina taxu koo jóg de addina taxu koo jóg moom ismullahi lazam xam naa koo xam ne nii moom itam mi ngi dund te xam na ko moom ismullahi lazam waaye addina taxu koo jóg waaw wala bokk njort ne xam na ko ndax dafa gént kilifa gu mag di doomi sëñ ci waaw mu ne ko ndax ba ngaa xam ismullahi lazam ci gént gi mu ne ko waaw mu ne ko lu ma wax dee ko wax mu saw ko benn tur ci tur yàlla yi waaye waxoon naa ko keroog al alim al allama waliyu mag wa maam Cheikh Mbay Kabir daana wax ne xamul ismullahi laxam ismullahi laazim la xam tur yàlla yi boo ca toppoo rek mu doon sa ismullahi laxam wax ji am solo ko kon loolu mooy ñaar fukkeel ak turwa ak juróom-ñeent moo tax ñu wax ne man xara ayatul kursi bi adadi kalimatiha aw bi adadi xurufiha suma daa istajaba allahu duaahu wa axtahu sualuhu wa xada xaajatu ku jàng ayatul kursi ci limu ay baatam mooy cinquante mots cinquante baar koo jàng ayatu ko cinquante fois wala nga jàng ko ci limub ay arafam li gën a siiw fii ci nag mooy araf yi cent soixante la waaye araf yi cent quatre vingt dix la comme neex nga nee na jàng cent quatre vingt dix wala nga jàng ko cinquante fois soo ñaanee sa aajo yàlla nangu euh, wuyu la soo laajee yàlla mu jox la te sa aajo dana faju waaw kon wax naa ko sànq nee nañ alxayul qayum mooy ismullahi al am na sax ñu wax ne yont yàlla isaa ci la daan dekkalee way dee yami dekkal ginnaaw bu waxee yaa xayu yaa qayum bu njëkk ba sax ñu ne ci géej suñ musaana laba ragal lab yaa xayyu yaa xayyuum la ñuy lu am solo la lu am solo la ku dem ci nasul bidaayaat wa tawsifu nihayaat da nga ko fekk ab lim bu mu indi ci xayyu ne ku ko sikkar da nga gudd fan su ma jumul ñetti téeméer junni yoon la wax trois cent mille fois yaa xayyu yaa xayyu man ca nasul bidaayaat wa tawsifun nihayaat bu fekkee juum ma ndax tëj naa ko def kon alxayul qayyum gi nekk ci ayati kursi mu ngi noonu moo tax ñu tuddee ko ayatu ismullahi al wax naa li ci borom naxtul bidaayaat wax te mooy ku ko jàng ñetti téeméeri junni trois cent fois doo feebar dootoo feebar wala sa feebar dana néew waaye wax na feneen ci téere bi ne mm, dama ko gëj a xool su ma juumul ne ku saxal di sikkar yaa xayyu yàlla dana la yàggal ci àdduna te dana dundal sa xol ci leeruk tawxiid waaw loolu wax na ko kon al yaa xayu rek yaa yaa xayu rek boo ko dee sikkar moom dootoo feebar te it yàgg ci àddina te alxayu nag mooy kiy dundu te dee ki nga xamne mo fi def ba faw ci dapeto kon gis nga xayjul xëyum gi motax ñu tudde ko ayatu ismullahi al azam waxna naa ne yonte yàlla xisaab musa na bëgg dekkal new mom lay jàng ter yu bari innako na qur'an xawaasul quraan ko mu jarabaat euh, wala xasidatul asaar indi na ko suma jumul it mi ngi ci naxful bidaayaat ba tey sax jële nañ ci aliyu ibnu abi taalib radiyallahu mu ne bisu badar fa yont bi nekkoon damay ñëw di ko xool rek waaye su ma ñëwee rek fekk ko moom yont bi mi ngi sujjóot naan yaa xayyu yaa qayyuum ma dem ba ci yàgg ma ñëwaat fekk ko mu sujjóot naan yaa xayyu yaa qayyuum ba yàlla may leen ndam kon lii dafay tegtale màggaayug ñaari tur te mooy alxayu alxayum ndax baatub xayu bi dafa ëmb mboolem tur yàlla yëpp ak melaw yàlla yëpp ndax kiy dund te du faatu daa doon ku am kàttan ku xam kuy dégg kuy gis kuy wax ku aj kuy aji namm di aji des tey alxayum gi moom itam dafa ëmb mbooleem li mu def fii aajowoo ci moom mooy ki taxaw ba noppi taxawal leneen kon gis nga mi ngi noonu kon euh, aayatul kursi yu mi ngi noonu mooy sangub aay waaye mooy aayatu ismullahil azam fanweeri tur wi fanweeru fanweeru tur wi ci turu ayatul kursi mooy ayatu xaday xawaaj aajo ji nga xam ne mooy aayo nga xam ne mooy faj aajo yi ngir li ñu nettali ci benn dénkaane bu yonte ko joxoon aliyu ibnu abi talib karaba la ne ko soo amatee aajo di ko doxi jàng ayatul kursi yu tàmbale booy dox nga tàmbale sa tànkum day yor imaamul Kufi nee na lii lu ñu jarabu la loo xam ne amul benn lënt ne ku ku jàng ayat kursi ngir yombal ay mbir wala nga see sóobu suñ borom dana dana la yombalal loolu ayat kursi kon am na ay njëriñ yoo xam ne mu ne fi koo takk mënee fa ko lim ku sax ci di ko jàng rek da nga gis njariñ loolu ñu wax kon li nekk ci ayatu kursi lépp mënee fa ko indi waaye nañ yem ci fanweeru tur wi incha allah nga xam ne képp ku am aajo jàng ko juróom fukki yoon yàlla faj sa aajo ku ko jàng nga téeméer ak juróom fukk yàlla faj sa aajo rawatee nag ku ko jàng trois cent treize moom itam naka noonu ba junni yoon yëpp rek ngir fajub aajo la kon mbokk yi liñ doon wax ci ayatul kursi jeexul waaye mën nañoo yem fii ba incha allah jotaay bi di ñëw ñu ak ak yéen ci njariñ yi nekk ci ayatul kursi wa axiru daawaana أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته